jërëgeen jëf mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sangam bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, noo ngi leen di fàttali lekki seen télévision Mafatihul Bichri noo ngi fii ci Louga Louga pàkk boo xamante ni tubaax Touba Xaadimu Rasuul jaar na fi def fii kéemtaan tey ji nag ñu ñëw ak fii ci barab ba tedd bi barab bi nga xamante mu tudd Rahma ñu gën koo xam ci baatu alof muy yërmande barab bi sëriñ tubaax Xaadimu Rasuul ci yoonu bu njëkk ci gannaar fii la jëkk jaar jàngal fi boppam ñeent fukki kaamil ak juróom barab bi nga xamante ne sëriñ bi yendu na fi def fi yitte jaamu fi boroomam liggéeyal fi sangam bi di seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii la ñu ànd ak yéen fekk ci mbokki talibe yi fekk si ñi nga xamante ne ni ñu àndandoog ñoom ngir ñu leeral ñu lenn ci yitte barab bi lenn ci pas-pasi barab bi lenn ci eh, yitte yi nga xamante ne ni moom la sëriñ bi doon def si kon mbokkee da nga ñu topp rek ñu àndandoo ko génn ànd ak mbokki bi ñu bokk tudd yàlla dugg ci biir barab bi su ko defee ñu andil leen li nga xamante ni moo fi nekk ba tey yéen a ngi ànd ak ñun ci seen télévision ma fàtte xamal Bichri TV la télévision islamique ki est au service de waa kër Xaadim bu Rasul jërë ngeen jëf ka jërëjëf jëf mbokk yi kon santaal sunu borom subhaanahu wa taala julli ci sangam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ngeen ñu gis ñu toog mooy barab bi nga xamante ni mooy yërmande nu toogandoo fekk euh, mbokki taalibe yi ngeen gisoon léegi nu doon nu yëkkatil baatub zikrullah kalimatul xaq bu tedd boobu nga xamante ne nu ngi ko barkeelu def ko hadiya Cheikhul Khadim nu toogandoo fii ak suñu wet euh, Serigne Pape de dinañu waxtaanal lenn ci euh, cosaani ku tedd di alaaji Maam Samba Euh, ñu fekkandoo itam ak itam euh, sëñ Mandiaye Dieng moo ñu fas yéene waxtaanal ci taarixu barab bu tedd bi nga xamante ne mooy yërmande sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dëkkoon fii jàng fi ñaar ñeen fukki kaamil ak juróom jàngal ko boppam euh, nu ngi toggandoo ko itam Baye Ndiaga Gueye mi nga xamante ne moom moo ne ci barab bi nu ñaan suñu borom mu yàgg fi loolu te wér te toggandoo ko ñenn ci mbokk taalibe bi sëriñ Abdoulahat Thiam sëriñ Lamine Niang sëriñ Assane Dieng am Amdi Fall sëriñ Maxtaar Ngom sëriñ Mangone Diop ak Serigne Tall Serigne Talla Jaxate mbokk yi nga xamante ne nii yéen a ngi topp seen télévision Mafatihul Bichri TV kon nu fas yéene wax leen lenn yi nga xamante ne moo jëm ci taarixu barab bi euh, kon Serigne Pape xam naa duñu guddal euh, nu jox la kàddu nga indil ñu euh, maam Samba Soxna mi nga xamante ne bi Serigne Touba nekkee fii fekk si woon na ko fii àndoon ak moom mooy kan. auzu bi mina seytaani rajiim wa innii u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina seytaani rabbi auusu bika min hamazaati sayaatiin wa auusu bika rabbi an yahduruun salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Moustapha moom de loolu dana yombaa waxtaane ndax sama maam alaaji ma sàmba soxna sama maam Maalik Kodd moo ko indi woon fii ci réew mi ndax yàlla daa dogal sama maam Maalik Kodd ay nagam ma sa muy topp nag yi dem ban tegtal ko sama maam alaaji ma sàmba soxna mu wax mu ci liste xaaral ko wax ko ni ko nen ni nag yi feeñe mu wax ko ko noonu mu ko wax noonu la nag ya feeñe woon ba nag ya feeñe mu dellu ci moom ni ko yow daal bërëb bii xam-xam bu rëy bii nga yor kenn du ko yor di nekk fii dama bëgg nga jege si mu ne ko nag man neexum maa yëkkati ndax dama damaa galfant sama maam moo ko ànd ak moom fexe ba indi ko fii bi mu ñëwee fii ci biir dëkk ba fee ñu romb foofu moo ne këram waaye fii ay tokkoor ma woon loola Baye Ndiaga naan la ti ko leeral waaye liberté wër daal mooy suma wëllëre maam Malick Oddo la woon dem na ba bi muy wàcc ab liggéey dafa milaas boppam jël soxnaam su ndaw jox ko sama maam ni ko yomal xiyam yow laa koy laaj sama maam am ak moom ñaari doom muy Awa Baba ak Serigne Massamba sama maam alaaji moom nag la Sëriñ Tuubaa fekk si woon fii keroog bi nga xamante ni sëriñ bi ñu le 12 août 1895 bi mu ñëwee fii war ngelamoom li ba dugg ci saxaar googu comme bis bi ñuy màggal tey wax nañ ni ngelamu loolu sama maam Cheikh Soxna muy lu Soxna ak sama maam Babacar Samb moom la sama maam ma Masamba Soxna jox ngelamu la ni leen yóbbu leen ko Ceerno loolu sama maam As Soxna yàlla na yàlla yokk leer moo ma ko wax waaye daal li wérti wóoru comme mënuñoo guddal bërëb la bu am solo ba nga xamante ni Cheikhul Khadim ñëwal la fi boppam am fi fukki fan ak juróom jàngal fi boppam ñeent fukki kaamil alxuraan ak juróom Cheikh Moustapha loolu daal mooy li nga xam ne mooy sabab li ci des sëñ Mën Njaay dana ko àggale bàyyi njëga tëj ñu daal di waaye barab bi daal barab bu am maanaa la sëriñ bi it moo ko tuddeel boppam yërmande sëriñ Pape nan nga nu ko indilee suñu xel dana dem ci yaa rahman yaa rahim rabbi bi ma yasrahu la saana xat fa jaa bi jaay afdali man lillahi xat la jaa loolu mënu yóbbu ko ñu waxtaan ak sëriñ Mën Sëriñ Tuubaa la Rasuul mi fi jaaree le 12 août 1895 dañ ci danañ yóbbu ci ñu fàttaliku li Sëriñ Musaa Ka doon wax naan lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay jëm soow jant fépp mel làmbaay jamono boobu jamono bu xat la woon jamono boobu jamono bu tar la woon ngir képp ku ne woon tubaab bi woona la say bokk ñaanlu nañ mbaa nu saraxe Sëriñ Tuubaa jaar fii def fi lim fi def tànn bërëb bi tuddee ko yërmande ana taarix bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu sant sunu borom subhaanahu wa ci ñëw gi nga xamante ni sëñ Moustapha ñëw ngeen ko ci barab bu tedd bii nga xam ne day barab bu jara ñëw ndax ëllëg gën jëm yërmande képp lan fay soxlawoo sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni kenn nattablewul yërmande ci moom xasida googu nga xam ni moom nga ubbee mooy yaa raxmaanu yaa raxim ma nga cay wax ca biir yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami alwara yaa haadiya rada kon nga xam ni dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñuy soxlawoo fii ak fanu jëm mooy ak yërmande barab bii nag la Cheikh Ahmadou Bamba tudde yërmande ñuy xool ni sunu borom subhanahu wa taala barkeel na lépp Cheikhul Xadim ba tax na kon xam nañ ni buñ doon wër dara fi sëñ tubaa ni fala loola nekk dëppe naa ko loola buñ koy wër dan koy wut si foofu kon ñu man cee am taarix bu wér ni yërmande la suuf si sax yërmande la euh, jaww ji yërmande la ndax sëriñ tubaa lu mu wax rek suñu borom subhanahu wa taala barkeel na ko nangu na ko loola it ci donee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk ngeen ñëw kon ci barab boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal Moustapha moo fi ñëw def fi fukki fan ak juróom wax nañ ni it ni ñëw na fi ay yoon jàng na fi lim bu takku ci alquranul karim ñu baax ñu bari ci ay seexam fekk nañ ko fii it ci barab bi wax nañ ni it ni barab bi it doonoon na barab boo xamante tey jii fi làngoona ak armeel yi di yërmande mu tudde ko yërmande mu doon barab bu barkeel boo xamante ni yërmande gi Cheikh Ahmadou Bamba wax day daal di tabbi ci biir yërmande jooja Cheikh Ibrahima Faal fekk na ko fii ci barab bii mu doon barab boo xam ni kon ñu baax ni ñëw nañ fi Serigne tubaa def na fi fukki fan ak juróom jàng na fi lim bu takku ci alquranul karim kim fi fekkoon it muy jëmm joo xamante ni kenn nattablewul doon gim doon kenn ci sunu boroom mooy sëñ Alaaji Masamba Soxna kon taarixu barab bi lenn ci tënk lañ leen di tënkal ngir waxtu wi ci loolu waaye daal li ci mataràññee mooy ñëw na fi ay yoon waaye liñ ci gën a ràññee ci biir ñëw googu mooy ñëw na fi def fi fukki fan ak juróom te kenn nattablewul Sëñ Tuubaa fu mu def rek genn saa ci jaamu yàlla waaye fun wax def na fi fukki fan ak juróom waaye nag it ñu askanale ko lu nga xamante ni moom la ko suñu borom sedd mooy alquranul karim ñu wax ñi def na fi lim bu takku ci alquranul karim kon loolee rek mat na ci di saytu barab waaye lañuy ñuy soxla woo tey ak ëllëg mu yërmande Sëriñ Tuubaa dëppe ko bërëb bi kon sëñ Moustapha ñëw ngeen ci barab boo xam ne taarixam moom la ñuy saytu tey moom la ñuy saytu ëllëg muy yërmande sama borom kon ñu jox sa njaga mu kon jërë jërëjëf dana ci am yum ci indi ndax sëñ Tuubaa barab bi nga xamante ni fa la doon yeesale njàpp ak barab bi nga xamante ni fa la doon jullee keroog bi nga xamee ni ci la dagg garab gi ngir war a taxawal coupole bi fii nga xamante ni fa la Cheikh Ahmad Bamba nekkoon doon fi yeesal njàpp garab googu ban ko daggee reen yi dafa doon def xeet xeet xeet xeet xeet xeet foofu def meew moo xamante ni dafa fi la taa fii ñu bari ci jëmm yi fekke woon nañ ko muy ndox moo xam ni dafa toog di ball ndax 1981 bi nga xamante ne sa borom dogal na ñu nekk ci biir liggéey bi bari na ñoo xamante ni fekke nan loolu keroog garab gi nga xamante ni ba fii la nekkoon euh, mason bi nga xam ni moo yoroon liggéey ba wax na ni la ko taxa gëm ndax ba ñuy dagg garab gi fekk ko fa wax na ni la tax a gëm lañ waxoon fii mooy moom ba muy dagg garab gi ba yegsi ci fi nga xamante ni fa la Sëñ Tuubaa doon jullee muy minbar bi nee na xet-xetu reen yi nga xamante ni mooy garab gi fi nekkoon na muy wale ndox reen yi buñ ko génnee moo ko gëm loolu lañu waxoon kon loolu di ak cant goo xamante ni sama borom dogal na mu am na jëmm joo xamante ni suñ borom dogaloon na mu bëgg barab bi di fi yëngu saa su ci nekk mu fi yëngu guddi ak bëccëg suba ak ngoon di liggéeyal yàlla suñ borom ci barab bi ba suñ borom dogal ni ko danaa la woon taarixu barab bi ba ko jëmm jooju sans borom dogal mu ñëw lenn lu ci nekk ba guy gi nekkoon fii sans borom won ko ko won ko garab gi won ko fi nga xamante ni fa la sëñ alaaj Masamba soxna nekkoon won ko barab bi suñ borom subhaanahu wa taala dafa dogal bi mu xoolee loolu dal di ñëw fekk jëmm ju tedd ji nga xamante ni moom la suñ borom joxoon liggéey bi mu saytu ko ni ko dey man de suñ borom dafa dogal comme juguma ci barab bi mu ni ma danaa la baaxee taarixu barab bi bam ko laajee. na barab bi demee wax ko la mu gis jëmm ji dafa toog ni ko wallahi alazim ni la deme fii mbartal la woon diggante foofu amoon na yoon wu sew woo xamante ni fa daan jaar moom di dem këram ni ko noonu la demee woon jëmm joojoot noonu lan ko ko wone woon nga xamante ni kon barab bu am yërmande la barab bu barkeel la kon nag euh, jërëjëf sëñ Moustapha nga <laughs> suñu xol sedd na xel dal na xel ma dafa dem ci damm xayaati li xayaatillaahi allahu daahin li jinaanillaahi waaye xel ma dafa demate ci lamtan xuni muqaddamatul mawti waxad rafatam bi bil baqa u sawti mu mel ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon ah, la ma waxoon Cheikh Mamadou Moustapha du ma samp dara loo xamante ne ni dana màgget waaw mbaam samp dara loo xamante ni day jara sempi mbaa ma dara loo xamante ne da ngay dem ba mu yàgg seen xel bopp dong di leen ko may ngeen ne nañ ko jooyantewaat man Ahmad lu ma samp dëgër na ba noppi mu mel ne kon euh, dañuy euh, gàttal euh, waaw dugg ak Baye Ndiaga ci mu tënkal ñu rek ndax taarix bi daanaka li ci ëpp solo ndikk na waaye ku wal mburu tudd dëkk te moom la fi sëriñ bi rek kon Baye Ndiaga ana kaddu yoon ñu ciy dolli. bismillah. ñu ngi leen di nuyu ñu ngi sant ndax dox ngeen tànk yu baax ah xëy na nag fekk ngeen ma ci xat-xat ak itam xol bu xaw a ndax sëñ Moodu soxna mi nga xam mooy taawu Alaaji Masamba soxna ah, mu dëddee adduna xalifaam ki mu fi bàyyi woon muy sëñ a soxna dafa génn àdduna ci fan yii ay bisam del seegu te sama yaram xaw a feebar waaye ngeen lu baax béréb bi nag béréb la boo xam ne bii béréb bu màgg ci yàlla la béréb bu kéemaane la man nag sëñ mooy soxna moo fi di dénk ma bi xamal ma ni ma ku ñëw na fi fekk ku dem na la fi ba ndax sama kër gee day bu ma fa mbubb bu may dem sorko ko amatuma fa dara sama lépp fii la ne te wattu béréb bi rek moo bàyyi ci àll bi sama kër mu ngi ci biir dëkk ah ba mu demee ba jëm ci mag nag tey kenn ci man bisu yorooru altine la ma wax lépp sax mënuma toog fi di ko wax loolee nag tënkënama na ma waxoon bu ma fanaanee àll daal ñaare ci li ëpp suñu aas muy dem ci taalibe ba war rek ne ma nan dem mànd ak moom bu yitteem ma dellu ci biir bi gii nag moo ne woon fi kuppool bi tiim fi la sëñ ab bu génn ngi fi woon fi la sëñ bi daan jàppe di penku si penkub kàddu gi ñu def ko làkkub salaan làkkub salaan boobee ci sama kanam la sëñ Fallu yebale sëñ Seex Sey bu kër soxna Fat Ja yebal ko ci sëñ Baye Modou sëñ soxna ni ko na defar biir boobee jàkk ba mu ko ko waxee mu daal di woo Alaaji Mbay Fëri ak uh, ki Mbay Jóob ñu topp dëkk bi ak mboolem taalib yi ko jot dégg lu ñaan am def ci ba taxawal jàkka mu jox soxna fa da jox ba jàkka ji noppee bàyyi sax yëgal sëñ Fallou ni ko noppi na seex si dellu ko soxna fat da soxna fat da joxe kaamin nañ ko fi wàccee àllarba jëkk ci weer la sëñ Fallou digle ci loolee seex si yenu kaamin jóge Touba indi ko jox ko bàyyi Cheikh Soxna nañ ko nañ ko woowal sëñ mu julli jumaa ji jàkk ji ñu léemu ko ko ba noppi mu ne ko té kaamil bi kër yóbbu ko sa kër yow mu yore nu bokk sëñ Touba ndax dañ fa loo joxe ci weer mu daal di koy yóbbu jox ko Baye Mbaye Seck jaar si gaar bi di ko yónni di indi di ko yëgal taalibe yi kër Modou Binta ak Baye ak ku ko yëg ñu di ko wàccee gannaaw tisbaar mu ji sëñ Abdou Seck ni sëñ Tuubaa dañ koy xel waaye kenn du fa gontu ñu di ko wàccee waxtu suba ba fi mu ne ñu ngi ci ah, maam Masamba soxna moom àll la dëkke suñ moo ko yebaloon mbawoor ah ngir bëgg lislaam jëm kanam bi mu fa nekkee àll la daan de dëkk mu dee du daan ci du daan ci rek def ko jàkk fa lay moom daal nitu yàlla woon fii bi mu da doon génn ku dëkk bi rek féete fii sëñ Tuubaa fekk na ko fi sax ay yoon yoo xam ni booba jamono sëñ Maodo soxna wax na bàyyi soxna wax na ma ne booba nekkul tegul ci loxoy tubaab bi kàddu gi nag bañ ko daggee loolu sëñ mu jaay wax am na ci kéemaan gu doy waar bi nga xamee dagg nañ ko ndoxo ci doon génne fi coupole bi tiim moo doon taatu kàddu gi ren bu génn ngi ci woon ci la sëñ daan jàppe di ñëw ci di fi julli ci ci ci penku ci penku kàddu gi keru kàddu gi ngoon bi foofu fi la jàkk ji ne woon ba tey itam bi soppikuwul ah nag boo xam bu kéemaane la ba tax na am na ci sax kéemaane daal sëñ bi nag bi mu jógee gànnaar fii la fekk ma sàmm soxna ndax da koo gàttandu ji ca wàll ba mu ne ko demal maa ngi ñëw ba mu ñëwee am na fukki fan juróom seex yu bari fekk nañu ko fi nag di ko siyaar kenn ku ne mën na wut ay fere yóbbul ma ci yéen ñu ma fa fu ñu mën dugg mu am fukki fan ak juróom ba fukki fan juróom yi métti fi jaar ngaañax jóge fa jaar daaru njaay jóge fa jaar kokki jóge fa jaar ndorika du dafa jaar kër baatin wuti ko wuti wuti wuti téyeen noonu daal sëñ bi sëñ Modou Soxna noonu la ko daan waxe ah béréb bi nag ñu baax a baax ñoom ñoo xent béréb bi mu ñu fi bàyyi see soxna mu di Alaaji Njaga Faal mu di Deng Faa Njaay Arif mu di Wàddu commerçant ak ñu bari daal mor gi ñu baree bari daal Ousmane Diouf ñëpp bi ñëwee ci Baye Cheikh ah di xentu béréb bi ñu jëli commandant Ibrahima Ndaw mu ñëw bi mu ñëwee ñu wax ko mbir mi mu ne man xamul woon ni fii moom sëñ bi julli woon na fi a ah, kon nag li ngeen bëgg Eh, may nañ leen ko mun ni bàyyi seex soxna man kat na nga ma ñaanal lii xaw ma woon am na fi mu ni ko lii lii lii mu wax day su fekkeentu ñaan gi day jërul sore ndax lii ma la wax su fekkee ne la demee yaa nga yàlla na nga yokk bu yëkk ci lu gaaw bu fekkee demu wuni nag yàlla bu ma ñeenti fan lañ teg ca ñu nommé góor gouverneur te taxawaay boobee saasa waaw kon nag béréb bi béréb la boo xam ne bii bu ma ta fonk la waaw kon nag mbir mi moom du doy waaye ah béréb la boo xam ne daal benn béréb la ci béréb yi ndax suñu wuy soxna day jóge ni jaarim jóge ni jaarim dem Touba ni sëñ Abdoulaye dama bëgg sa kàddu dem ci béréb ba ndax mu àgg sëñ Abdoulaye ni ko fulul Touba di njëriñ gi di bërëb boobe waaye daa am ñu ci war a te ñooñee mën na am seen jëm génnagul loolu daal ci gàttal ah waaw fa Mbaye Ndiaga Guèye Eh, ci ni nga ñu andilee lenn ci cosaan le tamit lu wér xet dal xel itam xool sedd itam bu baax a baax a baax ñu ñaan sama mu gën la fa yàggal ci barkeb ndigal li nga xamante ne moom nga am maam Cheikh Fall nag wax ne ndigal moom caabi la du ëpp du mu mel ne tey suñu xel dafa dem ci eh, ca bidaayatul xidma fi salaat ala sëriñ bi wax ne wàcc bi fii daar yekkal madina barakatan wa kahbatan wa moom sama borom suturaal ko ba fépp foo xamante ni def na fa ñaari rakka murid yi góorgóorlu nañ ba samp fa jàkk mu mel ne nag ban fi sampee jàkk nag ba noppi nag boobu ba léegi muy dox te ay murid a koy def am na ñu fi des kon sëriñ Njaga euh, sëriñ Ma Njaay danga ñu indil li nga xamante ne ñoo fi des ak ay jërëjëf euh, sëñ Moustapha di cant gi dafay njëkkee ci yéen sant sama borom subhanahu wa di sant Cheikh al mi nga xamante ni moo fi samp lii te booba suñu jëmm yi rek tax ak yërmandeem euh, di leen sant bu baax ndax jéego yi ngeen dox ba yegg si fii dañuy ñaan euh, suñu borom yokk leen ba ngeen yëg ko te it rafet nañ ci njot bu baax a baax ndax barab bi day barabu yokku yokkukaay euh, di sant jëmm yi nga xam ne it ñoom la suñu borom dogal actualité bërëb bii nga xamante ni gis ngeen ko ak nii mu demee ngeen gisee ko nii mu doon it juma ndax ci jàkka la njëkke ci ndigalal sëriñ bi ne ko sëñ Fallou indee ba ci soxna Fadja kaamil ban ci indi euh, yooyu yëpp dégg nga ko ci ku tedd ki waaye tey jii fii nag bi nga xamante ne gis nga ko ni ci jumaa nga ko fekk ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko taxawal kii ci njëkk taxawal loole firndeel ko it ba dox boobu am mooy Cheikh Abdoul Ahad gannaaw bi nga xam ne mag ñi fi nekkoon danoo toogoon jëmmi jamono di saytu ci biir Louga kër Serigne Touba euh, nga xam ni sëñ Ndiaga mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu liggéey bi ànd ko ak sëñ alaaji Ama Dieng Fandiaye ànd ko ak sëñ Mor Gueye ànd ko ak mag ñu baax ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci barab bii di xeeñtu liggéeyal sëñ Tuubaa bi ñu jógee sama borom dogal ñu jëm di wut ci bërëb bi fan lañ fi mën a defee kër sëriñ Tuubaa suñ borom def jëmm ju tedd ju kawe joo xamante ni sama borom defal nañu tawféex ci moom muy sëñ Ibra mi nga xamante ni tey jii moo taxawee kër sëñ Fallou. daal di indi ndee loolu xamal leen ni leen fu ngeen di fu ngeen di wuti day fa ca gën a yay mooy fi nga xamante ni fa la Cheikh Ahmad Bamba jullee woon dafa fukki fan ak juróom ci biir loolu it fekk sëriñ Cheikh soxna mi nga xamante ni sa borom dogal na moo yabal jëmm ji ci barab bi di ko seytu woon suñ borom xamaloon ne ko ni bërëb bi am na ñoo xamante ni ñoom ñoo ngi koy jël si ñoom yow da leen ko téyel jëmm yooyu ba nu yegsee mooy kon nin leen ko wax muy sëñ Euh, njaga Fall sëñ alaaj ama jëng faa njaay ba jëmmi tey jii nii bi nu agsee da leen xamal ni barab bi de yéen la doon xaar ndax dañ ko téye woon rek ngir téyel leen ko kon nag barab baa ngoogu sama borom dogal mu jox leen barab boobu ba jëmmi tey jii nii sëñ alaaj njaga mi sëñ njaga ñoom la àndeek ñoom ba moo taxoon lenn lu sëriñ bi joxe woon rek amul dara lu ci deñ barab bi nag it mosut a ci dara murid yee ko fi def kenn ku ci nekk sasoo di jëf ba barab bi yegg si fii jamono yi nga xamante ni 1981 fekk nañ ko ñun daan dugg ci pax yi nga xamante ni moo nekkoon fondement mu barab bi ku fi mësoon a dugg ci jamono jooju ci ñun doo génn ngir ni fondement bi melawoo sëriñ Abdul Ahad di wax na ci barab bii ni wax na ni budul fa Tuubaa fa njaarim di fa barab bee bisit jot na sëriñ Saalix Mbàkke daal di yebal sëñ Euh, Mbàkke soxna loo daal di koy wax ni day nanga gàmmu ji ca bërëb bu yërmande foofee nag lañ ci déggee mooy dafa doon jàngal murid yi xamal leen ni bërëb bii nañ koo fay defee ndax sëriñ bi am nay jamono day junj bu la junjee wax la teg la ci yoon la ca des xam-xam ak pas-pas moo koy yeggale jamono boobu sëñ Mbàkke soxnaloo ba mu ñëwee Tuubaa la jógee ñëw sans bàyyi nee na dafa agsi ni ko sëñ bi moo ma yabal ni ko naadal si yéen sama baay ca sama borom dimbali ko ca xel ma daal ni ko waaye kon de danañ la ñaan dalal la sa kër baay gii kër sëñ Cheikh Mbacke keroog fa lañ ko dalal sëñ bi ni ko kon nangul naa leen ko waaye ku tedd kee ma yabal ngir ma ñëw dal ak yéen ñu daal ko fay dalal keroog gàmm googu kenn xaju fa kenn xajul fii ci barab bi ngir mbooloo ma nga xamante ni teew na keroog waa barab bii la àndal gàmm gàmm googu. kon loolu am na luñ ciy déggee am na xam-xam buñ ciy déggee loolu nag ba jëmmi tey jii nii mi ngi dox dakkul jamono jii ñu toll sax sama borom dogal na ni leeralaat nañ fi ab liggéey boo xamante ni mooy yeesalaat barab bi ak yi nga xamante ni yéene nañ ko caa mottali ndax soroori juróom la yëkkati nañ benn bi waaye ñeenti yi dafa des ñi ngi ci liggéey bi gannaaw bi loolu jàllee it kër goo xamante ni weesu na 100 fii ci pakk bi ci Louga murid yi moom ko kenn du ko dond muy alalu suñ tubaa fii la am te mi ngi nii naa yi bari na leneen li nga xamante ni dafay dënkuwaat ci loolu mooy kër Seexul Xaddim gi nga xamante ni moo làngoog moom féete ko nii mi ngi nii ci barab bi toll nan ko ba def fa saal ya nga xamante ni ak euh, képp ku jóge ci ñooñu suñ Tuubaa boo ñëwee man faa nekk barab bi mi ngi nii ci sunu penku moom la yàlla sama borom dogal ñu def ko ba kuule ko ba nekk nañ ci raax bi kon leer na ne liggéey ba nga xamante ni moom la fi sëñ bi dële woon gisoon ko ma ngay dox waaye la sëñ Massamba soxna sëñ sëñ euh, Cheikh soxna téye woon di ko téyel njabootu Cheikhul Khadim gi ku gis lii xam ne mi ngi dox kon sëñ Moustapha ñu ngi jégglu ci cant geeg leeral gi. xamante ni moom la ñu sëriñ Saalix joxoon mu nekk ca barab bi di ko jiite jiite win woo xamante ni mbégte murid yëpp la muy. sëñ Cheikh Sow mi nga xamante ni sëriñ Sadif Mbacke moo nu ko jox yabal nu ko def ndigal ci moom ba nga xamante ni mooy taxawe liggéey bi mooy taxawee liggéey bi it lépp ñoo koy ànd ak ñun di ko ànd ak murid yëpp. tabarkalla sëriñ Mandiaye la am na solo kat bi mu mel ne rek eh, ndigal la tabbi na bàyyi ko ci ku tedd indi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo waxoon ne budul Touba di njaareem di fa barab bi. kon mu mel ne euh, lam yàbqa li siwaa na si ati liman xasartuhum li waj maalika saman sëriñ Pape euh, kàddu yu yi tàggatooy yu tàggatoo yi mooy sant rek ndax yow itam sëñ Moustapha euh, yal na yàlla yàggal sa taxawaay bàyyi njage mi ñu fekk ci bërëb bi ca muy cosaanul bërëb bi yàlla yàggal ko fi sunu kanam yow mi ñu àndal ñëw ngay taxaw fii nag da ngaa bokk ci yoon yi ndax sëñ Daaru Asan Njaay sa maam kon boo jógee di xeeñtu jaar jaari sëñ Tuubaa eh, di fekk barab yi nga xam ne sëriñ bi dafay jaar mba ak ak liggéeyi sëñ yi nga jóg di ànd ak sa équipe ngeen di ci dox ñu ngi ñaan yàlla na yàlla faj seen ajo te seen tele bi fépp fu ab télé àgg yàlla na ko kawe. bi jaay xaadimu rasul sallallahu alayhi wasallam di yàlla na yàlla yàggal taxawaay yi suñu waajur yi nga xamante ni nii danoo dooroon bërëb bi ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu jiitu dem barsax yàlla na yàlla yokk seen leer ñi nga xam ne ñoo fi desandi yàlla na yàlla guddal seen i fan wéral seen i cër te yàlla kàttanal nu ba barab bi yàlla def roof ñu kàttan nga xam ni lépp lu nga xam ni yéeneen nañ ko ci defal sëñ defal sëñ Tuubaa ñu def ci ba def ci lu kawe suñ njor Cheikh Moussa tabarkàlla jërëjëf sëriñ Pape kon noonu la ñuy sante sëriñ Maxtaar Ngom sëriñ Maxtaar Ngom bi nga xamante ne mooy taxawee waxtu yi la di sant mbokki taalibe yëpp rek mooy mooy yëkkati kàddu gi taxawee taxawaayu taxawaayu bilaal bi saa bu yëkkatee mbokk yi mën ko fee fekk si ngir kat jàkka moom saa su ne dafa am kuy woote ñu santaat bu baax kon uh, mbokki taalibe yëpp uh, seen mbokkum taalibe la woon fii ci Louga àndandoo ak yéen àndandoo ak uh, kenn sunu ci caméraman bi Serigne. ali euh, Mahamadou Lamine Bara Sène di santaat bu baax a baax di gërëmaat bu baax a baax wakun muhisalana min charri ji hasadin ma charri famin wa charri ayn yàllaaw wa charri chihrin wa charri xalq insahumu max giinhum wa zawat sim yàllaaw jërë ngeen jëf وكفى من أنكر باغتلال الكتاب moo jàkk yi may jiite moo ma nettali ni ma pàkk bii ma ne ko waaw mu ne ma Sëriñ Tuubaa daje nañ fi ak Sidi As Malick ak Cheikh Sadibou ak maam Cheikh Mbay ak ku wax Baay Cheikh ak ku ñuy wax Moxtaar Jeng ñuy wax Masamba Masamba Xëy ak Cissé Mangone mi leen dalalan nee na si saadi bu yi ñëw ñëw na boobu ma ngi dal fii ci kër ba mooy Baye Basiru Jeng nee na Cheikh Saadi Cheikh dem si ni ko sëñ ku toll Cheikh Saliou kenn du ko dalal ci kër na fi ñu ngi fi jàkk yi ñu ko jàllal si fii ci yàlla sa ñun sëñ Tuubaa dikk na fi moom daal dem ci ab pay am sam sam samb samb sam samb mu moo daal ba noppi moom waaye nag moo sañoon de jàkk ji ne fi te moom ku ne di barkeelu ci moom la mu gan ñu indi ko ci yi boobu na yàlla jox na ko baat ndax commerce boobu boobu yàlla jox doole waxtaan ceeg moom bu jiwu ceeg moom fan yooyu tuuti rek Cheikh Sidi Asmaay dikk fi fekk si si eh, eh, Malick Sall maam Malick xam nga si eh, aw Sidi moo moo ko yoroon moo moo ko moo ko jur moo ko jur mu ngi juróon kañ wax Moustapha Sall Moustapha si si yàlla mu ne ko daal gannaaw yaay yilimaan jàkka ji ci jàkka ji te yàlla dogal na ñu gan ñi ñëpp dajana toon Sida may fii daal lii moo war seen gan Cheikh Ousmane nee ma ne ñu nekkee di addis ci yàlla yont bi di addis ne ba waxtu wi jee ñu defaru ñu defaru leen daal di wax ñu daal di nodd ñu ne yilimaan ji bay Cheikh dem mu ne ah, ah, mën naa jiite waaye bu jiitee bu suba mu faatu ñu ne konte bu jiite ñu ne a ah, waaw kon kon day bay bay bay Cheikh dem bay ñu ne bay Cheikh Mbay sëñ Moussa mu ne moom bi kay du jiite boobu yoonam néewul ci jiite ñaar wax ni E, mam mayu sàll kon kay yow mi yaay fi jiite xeet kon yaay jiite mu ne aa wax ngeen lu baax de waaye na man du ma jiite fu alaji may ne ah ñu kon rek sëñ Tuba mu ne ah waaw wax ngeen lu baax waaye sama mag yu baax jii du mu ne mu mu ne ko mu ne ko wax waxal baax waaye njukkal moo du Mbàkke mii du nekk mukk mbooloo ma dafa jiite lii moo waral jiite Sëriñ Tuubaa fii ku ñuy wax Babacar Fall eh, Mbay Fall de neema mu ngi dëkk fii ci kër Soxna Astu neema rek julli nga ci la bokk waaye ne julli yàgg na yàgg goo xam ne kii defe Naas la jiite ñaari rakk yàgg na yàlla sax machine bi fay ab fees ko toj ko togg ko ba mu ñor ne ñaar rakkay soo ko yegg mais nii day ne fekk na ko fii sëñ Tuuti sëñ Ousmane Cissé moo ko nettali fii kon am na ci lu wér ngeen defit du ci dem du ci demee rek mën a waaye du du du du kenn mën waaye loolu danañu lañu a nettali na ko si yéene jëriñu jëriñ ci dàq ci saf ñodda ci ngëneel ci dara yont yi barakat alquran alhamdulilah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wa ladaadin inna fatahna laka fatan mubinan liyaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ويهديك أسرار متاك ويترك الله نصرا عزيزا نصر من الله وفتح قلب المؤمنين ورد الله الذين كفروا بخير لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن الختال وكان الله خيرا عزيزا ألهيكم التكاثر أتى جسدي كوسوف الذين تاهوا تاهوا الذين تاهوا إيمان عفي شمانه يخلقني مدافعه لكل هبدا خشيط بخير الحرم saa borom nam war maa leen xaritam ba ca xaarima warmaale ko sëriñ Tuubaa ca Gabon yal na booy làq fa yàq yeggul làq ko suñu jabooti kër làq ko suñu jabooti àll ci dara yont bi sallallahu alayhi wa sallam barakatul alquran barke xaadim rasul barke lislaam jërëjëf mbokk yi gannaaw ba nu sante santaate suñu borom subhanahu wa taala julli ci sangam ba di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ko bokk seenandoo fii ci Louga lañ nekk ak yéen ba tey leen indi li nga xamante ne ni lenn ci ay jaar-jaari Serigne Touba Xaadimu Rasuul garab gi ngeen gis nag ak xewar la ñi ngeen ko séenee sëriñ Touba Xaadimu Rasuul mës na fi bind ba tis di dal ci garab gi yàlla dogal lépp loo xamante ni laal na ko dafa barkeel sama borom barkeelal Serigne Touba léppam ba tax na doomi garab gi yéen a ko seen xob yi saa bu waddee rek tisit daa ji da ciy nekk nga xam ne kon Serigne Touba kenn xam lu mu doon yàlla yàlla rek ko xam bokk na ci ay kéemtaanam taxoon soxna Faati Ja taawam bu tedd ba soxna Faati Ja jàmbaari Serigne Touba ja soxna Faati Ja ka bëggoon Serigne Touba Xaadimu Rasuul dégg ngeen xisa bi su ma sànni dem Daaru Salaam day summi ay dàllam di wax naan naay jaar ci suuf ndax yàlla seti digg gi jàppoon jamono sëriñ bi amaana mu jam ma ndax mu barkeelu ci kon mbokk yi ab barkeelu dong lañ leen indiloon. fii ci Louga àndandoo yen waaye barab bi seet ngeen ko fu Sëriñ Tuubaa jaar julli fa ñaari rakk ni ma ko waxoon léegi def nañ ko jàkk wax nañ ne Cheikh Sadio bi jaar na fi Cheikh Sidaji Malick jaar na fi Cheikhul Khadim jaar na fi ci yoonam yi nga xam ne daan na ko wëri jëmoon ca gànnaar ga ci yoon yi nga xam ne ko wëri daa sàkku xam yoon yi nga xam ne ko wëri daa wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci pàkk yëpp dafa waxoon maam Cheikh Ibra Fall ne ko kii may wër su ma su ma déggoon ñu ne asamaan si ko tiim rek mu ngi fi ba tey mbaa suuf si mu daan jaar doy na ma naa ko topp ba am li ma bëgg maam Cheikh ne ko man itam kii may wër su ma dikkoon rek ñu ne ma ab bàmmeelam fii la man itam dinaa fexe fexe ba am ngërëmam ca bàmmeel ba kon sëriñ Pape ana loolu ñu rek ci taarixu barab bi di xewar gi nga xamante ne ni xewar ku tawfeex la. moom lay bërëb bu am maanaa la bërëb boo xam ne ñett ñooñu nga wax dañ ni dañ wax ni jaar nañ fi. muy Cheikh Saadu Rabbi maam Alaaji Malik ak Cheikhul Xadim bi mu nekkee jàkkay salaat nag su maam mbay fëri man laa daan àndal ñu ñëw fii léeg-léeg bu julli jotee mbaa wàccu jóge marché julli jot mu jaar fii julli dem ci kër ga yàlla di dogal sérif yi itam fii lañ daan dal ba ñu tudde ko jàkkay xaadir eh, sérif ba nëg ni si si bërki dem rek la fi sérif yi jóge waaye nag euh, su koo xam ne waajur la ci ñun di jàmbaar lu baax ñor ko ñu koy wax alaaji Mor Ndiaye Samb baayam bu mu daan gis mu dafi néew di fi léeg-léeg mu fi jaar di fi joxe waxtu yàlla yi ak ñu tedd ñooñu fi jaar te tax na ba mu yëgee loola moom pëstéefam bépp ak yittee moo doon yeesalaat barab bi moo yeesalaat barab bi ba barab bi mel nii bi mu ko yeesalee ba noppi nag leneen lu ca waay di lu leneen boo ñëwantee di ko wax ci barab bi dara danaan la man de euh, la ca waroon moo ko defee laa ca noppi waaw. ñu koy ñaanal moom itam yàlla yàlla guddal fanam. wéral ay cëram. Euh, sëñ Moussa daal di ñëw ngeen tey ci dëkk boo xam ni. Mm-hmm. dëkk bu bari mbir la. te sëriñ bi mm-hmm. rek la ñuy ñi ci ëpp. Mm-hmm. seen yitte ci sëriñ bi rek la jëm. yitte sëñ Tuubaa nag bu dee sa yitte sa yitte bopp dootul la dab sa jox mu waaw te mag ñi ñoom yittee sëñ Tuubaa seen yitte woon kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaan yéen tam yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay te ñaan tele bi itam yàlla yàlla def ko muy télé bi gën a kawe ci tawe di siyaar suñu baay bi ñu nuyu léegi muy sëñ góor a mbaj nga xam ne moo nekk ci barab bi di fi jàngale alxuraan na ba magee ba gis ngeen ko xool ni waaye day jóge ci këram foofee ñu jóge ci yërmande di ñëw fii yendoo ba ngoon mu doogoon wàññi ko dem ñibbi këram kon moom itam yàlla na ko yàlla yàggal ko murid yi yitte Serigne Touba seen yitte Serigne Touba yitte murid yi di yitteem waxoon na ko mag ñi dafa ne képp koo xamante ni yaa ngi jëfal murid yi man maa lay fay waaye képp ku may jëfal murid yi lay fay mu mel ne ab xaas salaamay karimi samadi ala nabi wasilati muhammadi ala nabi wasilati muhammadi ab xaas salaamay karimi samadi mbokk yi nun ak yéen ci seen télévision ma fatixoon Bichri seen bokkum taal bi Serigne Moustapha Ndiaye àndoon ak Cheikh moom leen Bara Sène dikkal leen fii ci Louga ci xewar gi nga xamante ne Serigne bi toogoon na fi bind fi bàyyi fi kéemtaan yi bàyyi fi barkeelu bi barkeelu bi nag lan la doon indil ci seen télévision ma fàtte woon Bichri TV nun ak yéen duñ wax naa leen ko Louga daañ wax naa leen ko daañ dem Kajoor wax naa leen ko daañ dem Saalum fépp Serigne Touba jaar nii mu ko jaaralee ci ni ni ko nettalee ci ci yoonu géej gi nettali ko ci yoonu jéeri ji ma ma fàtte woon am na yitte am na yéene teg fa tànkam wan leen ko ngir ngeen lu baax li nga xamante ne moo leen ñor ne fi seen xol du ko nox-noxi nu fëggal leen ko ndànk mu yeew ndànk sël mu jàkkaarloo ak ñun la woon ak yéen jërë ngeen di sant bu baax suñu mbokkee ci Amérique di sant bu baax suñu mbokkee te Italie di sant suñu mbokkee ci senegal Dakar Njaareem euh, ba Touba wala jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu